alors bu ñu ñëwee ci euh, quotidien yéenekaay mm. quotidien yéenekaay euh, Alioune Tine la xëy euh, fësal wax ci moom nag jàpp na ni El Hadj Bilal man maa ngi ñëw qu'un état passéfien se met en place moom dafa jàpp ni actuellement régime bi fi nekk c'est le parti Pastef ñoom ñoo bëgg a gouverner alors que ils doivent gouverner sol mbubbu chef de l'État dem na bay wax ne nag Sonko dafa am une surcharge euh, légit de légitimité Diomaye une dette politique moom la Alioune Tine wax. Ah, Alioune daal day wax ay waxam rek ñu daal sa waay gañe nañu ñun ñoo gañe bu ñu gañee nag dañuy xool ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ils sont compétents ñu teg leen fa état pacifié rek état bi fi jógee ñoo gënoon nekk état bennoo benn bokk yaakaar yaa ngi dégg taw ko woon gis nga ñii ñii nii ñu fi teg mhm. pare guñu pareguñ de chaque jour nga dégg benn ministre bu ñu benn ministère benn kii bu ñu fa teggi teg fa keneen waaw mais yow ki nekk directeur ki nekk ki nekk directeur euh, Senelec bi est-ce que pastefien la am na ci ñu bëri ñoo xam ne du ñu ay pastefien ñu leen jël directeur ministre de ministre bi nga xam ne moo yor affaire agriculture est-ce que pastefien la nañu waxante dëgg dafa am ñoo xam ne du ñu ay pastefien mais lu ñu bëgg nag léegi lan ñoom lu ñu bëgg léegi mm-hmm. mais booy xeex ak benn parti ñëpp di xeex di xeex ñu dem ba am ndam wax dëgg yàlla nga mën a séddale c'est normal mais loolu moom mooy yoon dette bi nga xam ne nag moom la wax ne moom la moom moom la moom la moom la jomaay euh, amel waa Sénégal kooku incha allah danañ ko fay ñu ngi soog a dugg ci deuxième mois nii mënuñu ko jékki-jékki fay dana ko fay. Mhm. Sonko bi muy wax nag Sonko nee na gis nga man te bii mooy sama dernière wax ci affaire ay waxu ay ay wax Sonko bàyyi leen ko tout tranquille moom ci boppam xam na li muy def. Mhm. lu lu leer lay def xam na li muy def ak fi muy teg tànkam. léegi ñun ñu waa léegi ñu waa léegi léegi ñun état pacifié lañu waa léegi d'accord ñun bëgg nañu. li ñu wax baax na. ñun bëgg nañu waa léegi état pacifié bi ñu wax noonu ñun bëgg nañu ñun bëgg nañu ko ñun ñu nekk état pacifié ñun bëgg nañu man de bu ma la laajee ma la man bëgg naa bëgg fi nekkoon ñoo gënoon nekk état yi état benn bokk yaakaar APR nañu waxante dëgg. da ngay jóge fële ñu jël fas sa fas boo xam ne kenn xamul waaye yow da waaye yow jàngoo sax loolu mais ñiy jël ay ay technocrate jaxase ko seen yenn militants yi c'est normal dañu waxante dëgg le plus ministre xale bi nekk Azer Jean Jean Xobalam xale bu ndaw. Mhm. nekk Azer vingt-neuf ans la am nga war a xam ne kon kii nii nii nii nii wax dëgg la te dafa jàng li nga xam ne moom lañ ko jox. Mhm. waaw léegi état pacifien mooy lan état pacifien mooy lan ñun bëgg nañu. lu ñu wax baax na. ma ne bëgg nañu. alors man mi ngi noonu euh, Alioune Tine euh, moom laa wax léegi on a l'impression que notre Pastefien se met en place Sonko euh, a une surcharge de légitimité Diomaye une dette politique moom dafa jàpp ni Sonko daal pouvoir ba mu am sax waru ko woon am Alioune Tine. si PM bi ñu ko ou bien. qu'est-ce maanaam doxal bi muy doxal est-ce que il se croit président ou pas. mais il se croit mënul nekk ndax dañu am président am premier ministre moom moo la gën a xam ne premier ministre la dañu am président alors lan la bëgg a wax foofu je comprends pas par rapport ak sortie yu muy def ou bien wala pour moom moo diriger je comprends pas trop. non euh, Alioune Tine. oui il dit que dañuy jàpp moom on a l'impression que état passéfien moom moo bëgg a mettre en place. on a l'impression. waaw moom moo wax loolu. ok mais loolu amul. on a l'impression ak li am sa fait deux foofu laa bëgg waxee on a un président on a élu un président il s'appelle Bassirou Diomaye Faye et defe naa mu ngi doxal que le fait que nag muy doxal ak Sonko <laughs> loolu c'est très normal alors man je vois pas on a l'impression ou pas mais euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi fi Macky di nekk euh, mais dafa garder woon posture APR da nga koy sentir tout le temps mais weesuwul Diomaye quand il était élu euh, ñu fal ko président li mu njëkk def mooy dafa démission démissionné si li nga xamante ne foofu la bokkoon muy parti boobu ñu naay Pastef pour wane ni il est là pour tous les Sénégalais amul benn parti prise bu mu si nekkal du du APR du nii du opposition ou bien parti au pouvoir il est là pour les Sénégalais il est là pour les Sénégalais Ousmane Sonko nag posture am kenn mënu ko dindi ndax dafa mës a porter le fardeau mu nekk nit koo xamante ne il est très écouté par les Sénégalais. Mhm. mu am posture boo xamante ne moom euh, mbiram yàllaa ko teg mu nekk au devant de la scène. au devant de la scène boobu ça ne dire que on n'a pas un président parce qu'on a vu que dañu am président boo xam ne bu très serein maanaam jomaay mm, daal pour tënk si lu gàtt depuis njalbeen ba fi mu toll nii dafa mel ni nëbb suñu borom la te terewul nag mu ngi def benn liggéey bu bu bu bu extrêmement important boo xamante ne eh, kenn mun la wax ni mu toll hmm. peut-être Sonko moom la yàlla jox voix bi muy wax eh, comme il est très écouté nit yi di ko déglu mu ñuy ñu bëgg a Euh, parce que dañu depuis commencé di def ay sorties ñu ngi naay dafa war a génne posture opposition bi taxaw si posture état effectivement mu ngi si mais am na foo xamante ne tey bu ñu naree man si sama seetlu bu ñu naree lëxmal li nga xamante ne mooy euh, xelu sénégal yi di si bëgg am ni jaxasoo wala biij baajo wala di bëgg këpp si cere bi suuf di ko xajamal moom am na génn bu muy génn boo xam ne day jaxase carte yi am carte yëpp lay mélangé waat wan leen ni déglu leen ñu waat ba tey kaddu ya ñu taxawoon fa ñu taxawoon ba ngeen porté ñu tey foofu la ñu gën a taxaw pour génn leen yóbbu fi nga xamante ne foofu la ñuy jëm alors pour man dama gis rek ñaari nit yu ànd la et noonu la ko yàlla doxale parce que Sonko tamit il faut se dire que euh, il était préparé vraiment psychologiquement pour être président de la République peut-être euh, Diomaye <laughs> li ma naay nëbbu yàlla la yàlla andil ñu ko au dernier moment donc posture boobu wala waxin boobu la am mais <laughs> on a un président il s'appelle Bassirou Diomaye Faye c'est un miracle am na am na solo donc voilà. un miracle moom ne se reproduit jamais xam naa li am Sénégal moom du fi gaaw amaat non du euh, fi gaaw a amaat mi ngi eh, noonu eh, eh, dégg nga ku si tiirewul euh, leçon xam kan mooy taxawaayu yàlla dootoo ko si tiire effectivement euh, Modou mhm. dégg nga Alioune Tine li kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko naka nga ko jàngatee waaw pour man ah peut-être avim la bu ko neexee mën na ko joxe mais man gisewuma ma mel parce que mhm. gis nga réew mi dañoo toll foo xamante ne ni je crois que ñu am un état pastéfien ak un état républicain apériste ou ou mën nañ ko tuddee nu leen neex quoi c'est pas le Mhm. man li ma jàpp ne le plus important mooy euh, on a élu des hommes wala on a élu un homme mhm. accompagné par des hommes ñu war a liggéey Sénégal tey yaakaar naa démb fii lañ ko doon wax ak Serigne mu nekk bëgg opposé wala bëgg ñu dégg la warul tax sax ngay def yenn sorties yi parce que tey euh, bien vrai que gis nañu le président wala sax euh, le premier ministre Ousmane Sonko di faral di def ay génn yu bëri am na ñu bëri jàpp ne peut dafay dafay dem ba ba jël li nga xamante ni moom moom la président bi moom mais je crois que c'est pas ce n'est a am solo mhm, gis nga ña yàlla daf ñoo may ñu benn sens. muy dañoo am deux hommes yoo xamante ni seen complicité sax daf ñoo benn. Mhm. parce que nous avons président de la république boo xamante ni tey xaaruñu ko woon. Mhm. on avait préparé un homme pour pour pour mu nekk suñu président. mais avec euh, xaw ma euh, justice divine laa koy mën a tuddee. xaw ma sax. fexey doomi aadama parce que peut-être am yàlla am na ci part de responsabilité mais nos gouvernants aussi am na yenn yoo xamante ni ñoom def nañ ko ci ba ba xañ ñu ko mhm. mu mettre en devant un autre homme boo xamante ni peut-être xaaruñu ko woon mhm. tey euh, moom mooy doxal moom mooy le président de la république mhm. mais gis nañ discours yi nga xamante ni aussi waxoon nañu ko avant mu ñu ko jox jox naa leen Diomaye élire leen ko mais du ma ko bàyyi je travaillerai avec lui je crois bien que tey Diomaye bu amee sens am premier ministre bu mel ni Ousmane Sonko boo xamante ne peut koo xamante pare woon na sax pour gérer un état nga jox eh. nga nekk le président ñu gis euh, liggéey bu am solo bi xamante ne moo koy def au plan international eh. je crois que li ñu war a mën a def moom mooy saluer seen posture eh. te bàyyi leen doxal gis nga tey euh, tooguñu fi pour défendre le gouvernement Pastef tey bu ñu demoon bu demoon deux mois trois mois quatre wala cinq ñu gis que ne gouvernement bi ñuy élire dañoo jël yoonu gouvernement bi fi nekkoon wala dañoo jël yoon ñun dañuy taxawaat dans le plateau décrier ko xamal leen ne ñii yoon bi ñu bëgg a yóbbu foofu lañ loolu lañ ñu jaayoon en fait mm-hmm. mais bu fekkee ne nag dañuy toog peut-être gëj nañu génn wala bëgg nañu fës wala bëgg nañu benn buzz wala bëgg nañu waxtaane ñu tax ngay dal ci ñenn ñoo xamante ni tey gisaguñu fay yoon loolu aussi ça pose un problème ah, ah, am na am na solo alors euh, Abou si El Hadji Abou Bilal euh, dégg nga itam euh, leneen li nga xamante ne am na ci kaaw Cheikh Bara Ndiaye ak Thérèse Faye démb je pense suivre